laan bi kum ndakaaru njaay fa tàkk jëppeet safara ak deret ju tuuru lanu fa nemmeeku niki démb allah source ay yéene kaay ñu ko xamal bés bi yéene kaay na ko fitna juñ mësta gis ndakaaru lu mësta xam yow fa ngay tiit ànd ak njàqare ndakaaru fa ñuul kukk presque fépp a doon tàkk source ana ko faa lay wax li ko waral Ousmane Sonko fañ koo jàpp ca boori Koungheul takk der yi daal di koy xandi ndakaaru ca këram tëj ko fa na ko doo fi génn te képp ku dem ngir lewa xalaa mandir bàjjo xalaa xalaa doo fi jaar maanaam kenn mënu koo seet li ni mel nag moo naqari ay farandooram ba tax démb ñu wàcc booyal ndakaaru critique yéen a kaay ne li xam démb fa garaaw fa yéeme fa doy waar est-ce que ñun jëmuñ ci ak guuta kaawo wala fa ji yéen a kaay na ko faa lay wax gis nga kaawo dëgg-dëgg ci la réew mi nekk gp yéen a kaay ne patriote yi Pastef fañ doon xamal guérilla ñàkkante farandoori Ousmane Sonko yi fañoo ñoo tàbbiloo guuta ndakaaru les a kaay na ko ñoom daal kilifa yi nekk ci nguur gi seeni kër ñoom leen tànn rek teg leen bët di leen song lépp ngir ñu dindi tëj ba ñu tëj Ousmane sonk këram ah, yaaw seetal hay xoto yu bari fañ koo taal ca buntu kër Matar Ba mu fi nekkoon jëwriñ ji dénk wàllu tàggat yaram ñu ne déetewaay ministre Serigne Mbaye Thiam moom it fa ñoo taxalaat hay xotom buntu këram dakaar dem dikk seen ñaari bus fañ leen a taal ca Liberté 6 xam naa ab juma seen corbeillard ba maanaam ku faatu fañ lay dugal sax gars yi fañ koo taalaale ñaari station Total fañ koo caxat-caxatee buntu kër Abdoulatif Coulibaly fañ koo taal moom it Ba njabootam ga gendarmerie fañ leen a rawale génne leen kër ga gaaw yóbbu leen bala kaay ne hee yëf yi nag fa bëgg a ëpp fi mu toll nii te gis ngeen lu ko jiitu ca dimanche ja oto Cheikh Baara Ndiaye chroniqueur ba nekk wal fajiri buntu këram lañ fekk otom taal ko naka noona tamit Zator Mbaye bu APR moom it otom fañ ko taal ca buntu këram loolu dimanche la woon waaye altine démb ji nag yëf yi fa xëpp loxo bés bi yéene kaay na teer bi sax gaay fañ ko bëggoon a attaqué fa mooy chantier ya ca BRT ba moom rëccut fañ ko rajaxa ba tax yéene kaay bi ne kujje ak nguur gi fa ñoo war a amal a Sall Guy Marius Sagna Maymouna Dièye fa demoon démb ngir seeti Ousmane Sonko mastawu ko waaye takk dere fañ leen a sotti ay grenade lacrymogène tasaara leen na leen du fi dugg Aliou Sané coordinateur F24 ak Y'en a marre moom it teg loxo Direct News na takk der yi fa Sonko ca caravane ba jëwriñ ji dénk wàllu biir réew mi nee na nag Sonko kenn arrêté ko fañ ko encadré yóbbu ko këram dafa def lu jaaduwut taxaw nga dakkal li ni mel enquête ne leen Ousmane Sonko nettali na nañ yi xam na ne duñ ko a kaay na ko moo taxi Sonko fañ ko du génn te kenn du ko gis leaderu f sax fa dem ñu ne leen kenn du dugg l'observateur na ko faala ci yokkal député ak responsable yeewi askan wi xam nañu fa demoon waaye fañ leen a gaase ñaar fukki doomu aadama juróom benn teg nañ leen loxo démb Ndakaaru na ci ñett ñoo xam ne fa ñu bokk ci ña doon yàq liggéey BRT ba ak ñoo xam ne fañ doon defar cocktail molotov waa grand place yéen kaay na takk dere leen lañ def ne ah, fa tax fi mu toll nii yow fa ngay seet kër Matar Ba kër Abdoulatif Coulibaly kër Serigne Mbaye a attaqué taxal seen oto yi ak buntu kër ga ñaari biisu Dakar dem dikk station Total BRT ñu taxawal ko avocat yi sonko ya nga xam ne a xaaye ngir ñu dem gis seen client ci këram ñu ngay waajal riposte de ndax nee lañ ko teree génn te kenn du ko seeti c'est illégal du yoon l'observateur na ko fayu kay xam nga fan la nar a am boo moytuut mooy waa APR yi seen ndaw yaag ñu ngay tëkku na ñoom fa ñuy fay ci seen kër yiñ taxaw 24 heures na li moo tax nag faa wax ne fa ñoo war a xoote gaaw jàmm yëf yi dal ndax fitna baaxut mën ngaa xam fa muy tàmbale waaye fa mu yem kenn xamu ko léegsi ko yéen a kaay ne Ousmane Sonko nag démb ci guddi wax na ak ay farandoram ah, yaaw seetal a wax ne ñu ngi ci virage bu mujj bi maanaam léegi ñu yëgg jëm yéen ndaw ñi faa leen di encouragé lii ngeen di def nii faa ngeen continuer ko gën koo dëgëral te mooy taxaw taxaw bañ ak nooteel te faay xoo ndaw nekk ci diiwaan yi sax ñu ñëw ndakaaru yoor yoor yéen a kaay na sonko ma ngay encouragé ay ndawam ci xeex bi ñu ne te mooy ñàkkante njiit réew mi makki libération na sonko kay foo xas leen jóg ndax su ngeen ma seetaanee ba njiit réew mi xam li bëgg te mooy faagaagal ma su boobaa yéen ñëpp fa ngeen di mujj nekk ay jaam ci réew mi ndax fa leen di noot ma ngay leeral ne gaay bi ñu ko tegee loxo fa ñoo jël Malick Gueye Mouhamed ba takk der yi moo tax gendarmerie bëgg toroxal gàcceloo Ousmane Sonko ah bi mu nekkee seen oto ba ñan ñoo ko photo ba pare génnee photo yi ak ba mu yegsee këram ba muy wàcc ci pelu bëgg a daanu vidéo boobu sax fañ ko wane ak Anita TV kan moo nekk ci gannaawam ba mu mën a wane loolu yëpp ba tey yéen kaay bi ne Bougane Gueye Dany moom ay nitam fañ leen a song attaqué ca Kaffrine Bougane nag nee na nervi yooyu Ablaye Sow moo leen yebal maire diwaan ba te loolu du yoon lii yéene kaay moom di ñu xamal ne jëwriñ ji ñu dénk wàllu biir réew mi Antoine Diome ma nga woon ca pèlerinage bu Popenguine mook Benjamin Ndiaye njiitu jàngu ba lañ xootee mooy jàmm ak dal ci réew mi ba tey yéene kaay bi ne Pape Demba Bitèye moom it àndoon na ak pèlerin yi ca Kaolack ak Fatick si du quotidien ne jàngu bi kay fa ñoo xoote jàmm ak waxtaan ci réew mi l'évidence yéene kaay ne docteur Macoumba Diouf moom fa dajale séeréer ya ca diiwaanu Fatick ca seen def len nga ngir jàppale njiit réew Macky Sall ki fi nekkoon njiit réew bu Sénégal nag Ablaye Wade indépendant yéene